waaw euh, bu ko suivee. Euh, lan. avant boobu. jàpp nañu. ci suba ba tey ñoo ngi ci jàmbaarloog euh, ñi nga xamante ni ñooy police euh, ñooy gendarme di laaj ñoom euh, li nga wala matu 120 jours ndax la Correct. ko rek sànni muy ay jiw yoo xam ne tey jii képp koo xam ne daal moo ko xaw rek di nga ci jëlee muy donc seen ñu sol bi muy tey ñu yoo xam ne dafay seer ak xibaar seer ak ay liggéey maa ngi ci kaw waaw pare naa foofu. seen bi bu ñu keroog stade dañoo àndoon. ñu woo la bu daaro trop. dama dama dama. kon ani sere waale non boy ñooy dogaram ba cocktail molotov sénégalais la hmm.